Tubu gedi seetaan suñu ay vidéo demal youtube nga tapé daerah Wakana nah, Haqqan facebook nga abon nak te fatih fàtte di notifikasi notification di dina video vidéo bu ñu dugal nga mën am malik ñu ngi lay nuyu bu di lay ziar eh, di am mbégte jokkalante ak yow ay ci bisu magal gi eh, eh, fan ngeen jóge magal si ak naka ngeen dundee bisu. Assalamualaikum, di leen di leen sant di leen bëggee lu bari bëri di dolli di wax alhamdulilahi rabi alamin alhamdulilahi rabi alamin bon c'est la deuxième fois ma ñëw Magal Touba daaw laa fi ñëw pour la première fois ma def ko daaw baaxantal ko ren bon di sant yàlla julli Seydina Mohamed di sant sëñ Touba bu baax a baax ñu ngi jógee ba Grand Mbao Dakar ñëw fi doon ziar si Magal bésu Serigne Touba bi di dolli sant yàlla wéer a wéer A mu melni jafé jafe na lol ci jamono ji fi mu tollu mhm. ak ñi naan dina am du am ak ay tak masque ak yoy mhm. nak naka ngeen ko dundé bon <laughs> ni ko dundé metti na méttiwul parce que xam nga bëss bu tollu ni ñu naan day am ak du am. loolu c'est absurde quoi. question bu absurde la. bon yalla ak dogalam jaam ak pexam ken mënu ci dara. comme yalla dogal nako day am ken mënu ci dara. Mhm. fekkee nañ ko batal ko sante yalla du ñaanaat fekkee ko déwén incha allahu rabi ndax lu yàlla dogal moom doomu aadama mënu si dara daa waroon am am na fekkee nañ ko ba taal ko rek loolu rek a am njëriñ. waaw dafa waroon a am am na kon jaam ak pexeem yàlla ak dogalam ndigal li mooy màggal sant le suñu sëriñ bi yàlla ñu ànd sant li tàmbalee ci ginaar ba ci gileem kon yàlla nañ ko fekkee ay màggal yu bëree bëri ñu ngi lay ñaanal suñu borom defal la màggalu jàmm tegal la ci yoonu jàmm nga yeggaat sa njaboot. jërëjëf Pape Malick sant nañ ko baax ok merci beaucoup sang ok merci. بسم الله بارك برام توبا سيرن ابراهيم ندور نيغ لاي نوي بو باخ دي لاي زيار ا دي لين واخ ريك ناخ نين واجي لاي ماغال غي ناخ نين كو دوندي ا بيس بيغا خامني موي بيسو تيانت غي ا كوني غيسنا ني مبوك طالب اي ويسي اندي اك باسيف ا سا ماسك لي اك في جامونو تول نيكو سيرن بي ديغلي ني واتيو موم بو باخ باخ ناخ نين دوندي ماغال غي تي اديسيون 2020 واو اونز بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله والصلاه ابدا على الذي به لنا هدى ابدا خنا دي سانتار سنتو باخ te naan jërëjëfati Cheikh Ibra te ñaanal sëñ am mu yàgg fi lool ñu yàgg a teewee màggal gi waaw sant nañ baax a baax xanaa santati rek ndax comme li ñuy wax rek màggal gi moom màggalub jaayante la te saa borom bu defee ñu teewaat fi ah kon dañuy santaat bu baax a baax a baax a ah, màggal gi nag doon na màggal goo xam ne nii amoon na ay digle mu doon loo xam ne nii waxoon nañ ci ay mesures barrières yoo xam ne yuñ ci waroon respecté aussi ah te taalibe yi nag yaakaar naa jaayo nañ ci baax a baax a baax mm-hmm. ndax koo ci gis ah mi ngeek maskam mm-hmm. a ah, di respecte euh, mesure barrière yi mm-hmm. ah di raxas loxo yi ah, lépp lu nguur gi te euh, digle daal ñoom ñi ngi ci wax dëgg sant nañ bu baax a baax a baax gën nañoo xamaat ne ah sëñ Tuubaa amul morom ndax yàgg nañ koo xam sax waaye nag gën nañ koo xam bu baax a baax a baax ndax màggal gi moom firde na lépp ndax jamono ak fi mu toll fi mu toll nii ah nit ñëpp yaakaaroon nañ ne xeyna lu melni du am waye nak ah santaat nañ baaxa baaxa baax a ndax yëgaat nañ Sëñ Tuubaa baaxa baax gën nañu doliku ah gën nañu manam deggalat suñ bop ci yoonu su borom ah te di ci wo ñepp tamit ndax Sëñ Tuubaa dafa doon lo xamne ni manam aw dal mom moy jaante ak mom waye waye nak du question ay wax waye ay fit rek moy jaante ak mom kon ñu gëna gor gor lu baaxa baax a ah, gën a respecté tamit waa dëgg mesure barrière bu baax a baax ndax lu am solo la ndax dëkk bi fu mu toll nii doon na loo xam ne nii a ah, comme ni ñu wax mbas mi ku ci nekk war na jaayante ba maanaam li tey ji état tëral ah ñu jéem a wàccoog loola waaw ndax da ciy baax waaw ndax nit maanaam murit ndigal te ndigal moom ba xasee jug rek maanaam dañoo war a jëfee waaw ku xool Sëñ Muntaxa mii rek maanaam doy na lépp daal ndax boo gisee tey jii ba bañ ne mbas mi commencé na mu jël somme bu toll ni ci deux cent millions ah jëbal ko état a ah, ñun nag wax dëgg fa yàlla kon bu diglee ñu tak ay masque ah di raxas suñuy loxo a ah, di respecté xaw a respecté distanciation bi ah wax dëgg fa yàlla kon dañ ci lu baax a baax a baax loolu moom wax dëgg sant nañ daal sant nañ sant nañ màggal gi doon nañ màggal ak sant bu baax a baax a baax a baax wax dëgg euh, raar na ci màggal yi daal wax dëgg fa ragal yi raar na ci lool wax dëgg fa raar na ku baax ki mu mel ni comme ni nga ko waxee rek màggal gi moom ren màggalu jaayante la ndax euh, murid yi moom sëñ Tuubaa rek lañ bëgg euh, mel na ni euh, masque yeeg yooyu lu xawoon a jafe la ci buñ koy diglee ci ñenn ña waaye nag dafa yomb sëñ Muntaxa takk masque ni nañ takk masque kon buñ roy sëñ Muntaxa rek day yomb moo tax yëguñu dara mbégte rek la ñuy yëg ñoo ngi bég bu baax ci kaddu yi am solo yi ñaan suñu borom defal la màggal ak jàmm barke borom Tuubaa jërëjëf murid ok tawfeex bisimilah barke borom Tuubaa Euh, ñi ngi taxaw ak benn mbokk talibé Seydou Diaw ñi ngi lay nuyu bu baax di lay ziar bu baax euh, di wax ni fan ngeen jóge màggal si ak naka ngeen waajee ak naka ngeen dundee bisu màggal gi waaw di wax bisimilahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabi alamin jërëjëfe sëriñ Touba jërëjëfe sëriñ Touba jaraw rak maam Cheikh Ibrahima Fall màggal gi de ñu ne ñu ngi jógee ba Ndakaaru fuñ naan Lamsar waaw daa di ñëw màggal si nu ñuy gisee nii suñuy tourisine parent ay taalibe Cheikh akkan lañu waaw ñu bokk si famille bu mag famille omarienne waaye dañoo bëgg sëriñ Touba bëgg sëñ Fallou jébalu si doomam Baye Afia Mbacke comprendre ba jébalu si doomam Baye Afia Mbacke ñun màggal gi nuñ ko dundee nag mbégte dong ndax man si suba dama dugg si waañ bi di joxe berne ndax daf ma neex wóor na yàlla parce que ñun dañuy dama àndaale ren dama àndaale sama ñaari raq allah alaaji Fallou Mbacké dama àndaale ren sama ñaari rak àndaale len bir Touba te bama len ande àndee nañ lol am nañ kontante lu ñaan mbekté mi rek parce que sëñ Mountakha moo ne nañuy ré mm-hmm. nañuy ré rek buñ dé ré xam nga tay ji ni ku dul ré bo dé mer mm-hmm. ah yaakaar naan boîte ngay amé de wala ngay daalé amé amee karjaat daal di kii waaye boo dee ree moom rek ngay andal waaw waaw nitu àddina do mer te ñun ay taalibe señ Touba lay waaw parce que señ bi moy señ bi boo déggee ñu bëri naan sëñ bi mooy sëñ bi parce que tey jii nii sëñ Tuubaa dañoo ñun amuñu fayam ko boo déggee amuñu fayam daf ñëw liggéeyal lu bëri avant ñun ñuy ñuy judd liggéeyal nañu ndax sëñ bi gis na lu nekk si kanam ak kanam ak kanam kanam ah avant moo dem avant ñoo ñëw tamit gis na lépp waaw parce que lii la woote woon mbooloo te yàlla fay na ko ko parce que da ngay xool partout dans le monde nit ñi fu nekk la ñuy jóge di ñëw di màggal si waaw parce que tey ñii ñenn ñi waxoon nañu du am ñeneen ñi ne tiitar moo leen si bëgg a yóbbu waaye du ñu si bàyyi waaye nit ki ab gëm-gëm boo ka amee alaa kulli xaal loo munti def ah yàlla dina la si jàppale waaw tey jii boo yoroon un bëgg ne man déwén dinaa yor dix boo ko gëmee yàlla dina la si jàppale waaw parce que tey jii sëñ bi boo ko defaree benn da lay koy fay fukk sunu borom boo ko defaree fukk da la koy fay téeméeri junni kon koy tey jii nii boo dee liggéey lu bëree bëree bëree bëri di nga ko am ñun daal contentement rek la ñu ànd ak barke Serigne Fallou contentement rek waaw. ok jërëjëf waaw am na solo bu baax a baax la kon mu mel ni jaayante rek day day day feeñaat màggal gi moom màggalu jaayante la waaw dina amak ak du am suñu yoon nekku ci ndigal mooy suñu yitte eh, lii la ñu Sëñ Muntaxa digal ñu ànd màggal takk masque yi di laal ci sel bi màggal màggalu jàmm jërëjëf cant ak ngërëm ñel na la jërëjëf mbokk taalibe jaajëf bisimilah barke borom Euh, guddik 18 safar ñu ngi taxaw ak suñu jëriñ sëriñ Ibrahima euh, Serigne Ibrahima ñu ngi lay ziar bu baax di wax ni bisu bisu bisu cant gi bis bi nga xam ne moom na Serigne bi ni woon nañ ko ci sant le boromam bu yegsetee naka ngeen waajale bis bi ak naka ngeen koy dundee. auzu billahi mina sheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim maa ngi tudd Cheikh Ibrahima Faye di leen ziar bu baax baax ci dalal gi nga xamante ne dalal ngeen ma ko. daal may jox micro ma daal di wax ci li nga xamante ni mooy màggalu ren gi di 18 safar ñu ngi sant bu baax a baax a baax wax dëgg yàlla waajal nañ ko ndax niñ ko waajalee mooy màggalu ren gi moom pere nañ ci màggalu déwén la ñuy waajal fi mu toll nii ren gi moom jàll na sant nañ ci bu baax a baax ndaxte wax dëgg yàlla am na ñàkkul am na ñu ne newoon suñu tànk bëgg koo gor waaye nag dañuy wax ni ki nga xamante ni moo yore xeex bi muy ku tedd ki kooku moom mën naa xeexal boppam kenn du ko xeexal ñun daal leen war mooy jëfe ndigal rek te jëfe ndigal li weesuwul li mu waxoon bàyyi fi mu ni màggal gii nga xamante ni mooy 18 safar saa borom moo ko digal waaw léegi nag buñ ci eggatee yéen taalibe yi maa ngi saaku ci yéen ku ko man rek nga santale ma ci yàlla te niñ koy sante sart yi nekk nag waaw bu defee nag daanaka ndigal loolu mun ñun moom lañu wéyee rek amul lenn loo xamante ne def nañ ko lu dul topp ndigal li nga xamante ne mooy sëñ bi waxoon nañu ko. waaw si ngi sant bu baax a baax wax dëgg yàlla ren moom kontaan nañ bu baax a baax ndax màggal gi moom daanaka mooy mooy ni ko nit ñi waxee rek mooy màggalu murit saadixi waaw mooy ren ji ndax jaayante la laaj boo jaayantewul doo ñëw waaw ndaxte bu fekkee da nga nekk murit bu xaw a yambare mel ni man da ngay toog rek naa màggal du am te na sëñ bi moom noppi na ji moom. sant nañu bu baax a baax gërëm ci ñëpp bu baax a baax. alhamdulilah jërëjëf sëñ Ibrahima Faye ci kaddu yu am solo yooyu macha allah mu mel ni kon murid ndigal te ndigal li mooy màggal gi eh, ak lu mën a xew ak nu man demee rek dañ koy màggal mel na dugg nañ ci bisimilahi rahmaani rahim te ñu ngi jëm ci alhamdulilah rabbil alamin yàlla na ko yeggaleeg jàmm jërëjëf sëñ Ibrahima cant ak ngërëm màggalu jàmm